alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi mbokk yi ñu ngi sant sunu boroom mi ñu dajale ci néegam bu tedd bi faratal ko ci ñun ngiree ñuy fàttaliku la nga xam ne mooy sunu waru gar ci kaw imaam yi di ñu ko fàttali ajjuma ju nekk la nga xam ne mooy sunu xutba tey gannaaw ba ñu santee sunu boroom ñaan ko mu julli ci sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy fàttali lan mooy palaasu liggéey ci biir lislaam ñu ngi jóge ci premier mai di àdduna bi yépp di taxawal di fàttali ko àq ya nga xam ne liggéeykat yi dañ ko war a am waaye nga la waay yow julit bala ngaa laaj àq ya nga xam ne moom lañ la yoral mbaar laaj nga sa bopp man lan mooy sama àq ci li lan mooy sama waru ci liggéey bi nga xam ne dama koy def ca warugar boobu buñ koy wax mooy diine ji ngay dund lan la la sant nga war koo tax taxawee ci bépp liggéey boo xam ne yaa ngi koy liggéey mbokk nañu xam ne islaam daa santaane képp koo xam ne man nga nga am benn liggéey boo xam ne yaa ngi koy taxawee ci biir société bi sunu yenente sallallahu alayhi wa sallam loolu it mu ñaaxaati ci ci ay xadis yu bëree bëri loolu moo tax ba ñu ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla te jéem a xool ana lan mooy seen warugar ci fépp foo xam ne sunu borom yàlla féete na leen fa bokk sunu borom subhanahu wa taala moom moo ñu tàggatal lépp lu nekk ci kaw asamaan yi ak lépp lu nekk ci kaw suuf waaye nag suñ dund àdduna ngiree mu dox borom bii daf ñoo ubbil ay bunt bunt yooyu nit ñi war caa tasaaroo ku nekk am foo jàpp ci société bi ngiree société bi mën a jaar ci yoon société bi mën doon société boo xam ne buy dox la loolu moo tax ba xatta yonent yi yàlla doon yónni gannaaw responsabilité yu rëy yañ yoroon yépp teewul woon am nañ luñ daan taxawee ca la nga xam ne mooy liggéeyu société ba ñee nekkoon nañu ay baykat ñee nekkoon ay sàmmkat ñi ëpp ci ñoom nekkoon nañu jaar ci la nga xamee ne ni mooy ñu leen di fay ñuy sàmmal ay ñeneen di métier boo xam ne métier bu suufe la waaye yonent bi sallallahu alayhi wa da doon ñaax ne xam ngeen doomu aadama day lekkul loo xam ne dafa jóge ci loo xam ne nii moom mooy moom moo ko liggéey loolu nag moo tax ba wareef la ci képp koo xam ne man ngaa liggéey nga jóg liggéey waaye loolu daf ñu jàngal ne ndekete yoote bokk na ci jaamu yàlla yu gën a màgg gis ab jullit boo xam ne amul ci lu mu jàpp nga dimbali ko ba mu am foo xam ne dana fa mën a xëy di liggéey ca loolu sun jamonoy tey jii doon lu jafe lool ci sunu jeunes yi nga xam ne ñii ay diplômés supérieur lañu ñee amuñu ay diplôme loolu kon ñu góor góor li bàyyi ci xel bu baax waaye heure boo jógee ba xam ne yaa ngi liggéey ngalawaay liggéey boobu jox ko ak xam jox ko lam yeyoo ci ngërëmal yàlla ngiri dërëm ya ngi cay nar a lekk doon lu lew la nga cay nar a dundale sa njaboot doon lu lew waaye nga am ci sa ngërëmal borom subhanahu wa taala sunu borom yàlla daa sant jullit ñi ne leen wax leen man day samay julli ak samay rendi sama dund ak sama dee yépp jagleel naa ko yàlla ah kon menuisier bi heure buy jóg di jëm ca menuiserie bi day jàpp ne moog dem ca jàkka ja moo yem médecin bi heure bu jëmee hôpital commerçant bi heure bu jëmee marché mboolem liggéeykat yi ku jóg jëm fa nga jëm da ngay jàpp ne moog jëm jàkka jaa yem ay maa ngi dem ngir jaamu ji sama borom. maa ngi dem ngir taxawee loo xam ne sama borom ko gërëm ngiree ma am ci payug yàlla même bu dee doomu aadama yi fayu ñu ma ci it man yàlla subhanahu wa dana ma fay ci loolu loolu moo tax ma mbokk julit heure boo xamee ni nii yow dangay ngay ut ku la liggéeyal wala heure boo xamee yaa ngi jóg di wuti liggéey ngal la waay seetal ko boole ñaar yi mooy koo xam ne mën na la muy def waaye koo xam ne it nekk na koo xam ne nii ku wóor la ci loolu da ngay xool sunu borom subhanahu wa taala bi bani israil ñëwee ne kenn ci seen yonent dañoo bëgg nga wutal ñu buur ngiree ñu jihaad fi sabilillah sunu borom yàlla ne tànn naa taaluuta mu nekk seen buur loolu bi nga xamee ne am na ñoom ñépp ñu jaaxle mais taaluuta bokkul ci famille royale yi war a nekk buur lu tax ñu koy fal buur sunu borom ne eey kii day dama ko dolli may naa ko xam-xam may ko kàttanu yaram ca mbokk loolu mooy tax nga gañe ab guerre général d'armée fokk mu am xam-xam am kattanu yaram looloo tax sunu borom xatta taaluuta tudd na turam waaye yonente ban doon laaj sax tuddul turam ndax foofee taxawaayu la nga xam ne jihaad jihaad ba fa nekk <coughs> loolu moo tax ba même yow sa wàllu bopp bépp liggéey boo xam ne mënoo ko waay bu ko engagé ay bâtiment immeuble mënoo ko tabax yow maçon bu ci dugg menuisier bi mënta liggéey ensemble lañ ko sant bu ci dugg médecin boo xam ne xamoo lu ñuy faje bu ci dugg lépp loo xam ne dafa aju ci liggéey addu adduna te yow mu wóor na la ne lii kan mënoo ko ngallawaay bu ci dugg boo ci duggee yaa ngi dugg ci sa merum borom kii di Abu Zar <coughs> dafa ñëw ci yeneen ci bi sallallahu alayhi wa na ko dama bëgg nga fal ma ci fal yi ngay fal gaa yi mi ngi noonu fal ma ma nekk benn gouverneur ci région yi wala lu mu mën a doon yeneen ci bi alayhi salaam daal ay mbagam ne ko ay abi hurayra wala ay aba zar yow da ngaa doon koo xam ne ku lompañ nga responsabilité jiite amoo ko xamal ne lii di jiite yi ñu jiite même bu ca bànneexu àdduna nekkee torox taay nga lay jur yowmal qiyaama rëccu lay jur yowmal qiyaama xanaa lu dul koo xam ne da koo ci ak aka ne xool lii ñuy xëcc pour nekk maire aka ne xool ñii xëcc pour nekk ministre aka ne xool mboolem kiy xëcc di nekk gouverneur bàyyi xel xadis bi ca moo di ne ne yowmal qiyaama bépp pal guñ la paloon dana la jural toroxtaay nga jural la réccu lu dul xam ne jëloon ne ko ci aqam aq ba jëkk mooy jaarale ko fa neex yàlla te mooy jaarale ko fa mu war jaar exactement yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne heure bu ñu demee ba responsabilité yi ñu koy jox ñoo xam ne yeyowuñ ko xamal ne bis penc mi ngi taxaw loolu mbokk moo tax ba fokk war góor nañoo góorgóorlu ba heure bu ñu demee bay jël ay nit ci place ngan la waay buñ ci xool kii sama mbokk la ngan la waay buñ ci xool kii sama doomu xarit la waaye nañu xool bu dee loo xam ne réew moo ko bokk ndax kii man na la nga xamee ne dañ koy taxawee waaye yow it nga xam ne yaa fa jëm ngan la waaye ragalal yàlla sa kéemtalal kattan rafetalal sa kéemtalal kattan ndax kat da ngay gis ne kii nga xamee ne nii moom mooy yeneen ti yàlla yuusufa keroog ba mu demee ca buur ba ca buur bi na ko yow da ngay toog tey ma jël la nga nekk sama wet daf na ko man de li ma man féetale ma ci trésor public may gérer la nga xam ne mooy dund réew mi ndax man mën naa ko ca wóor naa ci loolu muy ñaar ya nga xam ne néew na mu daje ci nit <coughs> mooy nga am employé boo xam ne lan koy liggéeyloo lan koy liggéeyloo mën na ko waaye boole na ca wóor loolu mbokk lu jasa la sunu borom nag loolu lu ñuy digal mooy taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan loolu day jëm ca kay santaane ñu liggéeyal ko ak kaa nga xam ne mooy liggéey ngalawaay yéen ñépp bokk leen mbir mi ngeen di ko defee ci ragal yàlla subhanahu wa taala ci bépp contrat bu ñuy signé nañ ca jiite ragal yàlla subhanahu wa taala mbokk bokk na ci loolu benn musiba boo xam ne tubaab yi indil nañ ko tey mooy boo demee ci place liggéeyukaay yi léegi jigéen ñi rek la ñuy privilégié da ngay dem ci ay centre boo xam ne lu mat fanweeri jigéen nga gis leen fa te loolu ñuy def day am na góor yu leen ëpp ay diplôme foofu nekk ci àll bi xataa sunu mbokk yi moodu moodu bawal bawal yi nga xam ne sax ay commerçant lañu la ëpp ci ñoom léegi ay secrétaire u jigéen la ñuy ut musiba yu rey nekk ci benn ko am réew pour mu jóg la nga xamee ne mooy seeni góor di liggéey seeni jigéen gérer kër ya loolu mooy tax ab société daal di réussir amma bu dee ne dañoo jël jigéen ñi jox leen liggéey yi góor ñi ñu bàyyi leen ci kër ga loolu tardement ab société lay jur ñaareel bi itamit mooy wéetaay góor ak jigéen nga gis koo xam ne jabaru jàmbur la ngeen nga tëkk muy sa secrétaire yéenay ànd huit heures ba quatre heures di am ci moom loo xam ne doo ko am sa soxna moom it mu am ci loo xam ne du ko am ci jëkkëram fitna munul paase musiba yu am ci loolu loolu mbokk yéen ñëpp xam ngeen ko su ko defee ñu góorgóorlu heure boo xamee ne maa ngi jëlub liggéeykat ma xool ci lii lan moo ci sama ngërëmu borom waaye heure boo xam ne maa ngi dem di liggéey moo lii lan moo ci sama ngërëmal borom gannaaw ba yow mi nga xam ne yaay liggéey xamal ne yaa ngi signé benn contrat sa diggante ak sa kalay liggéeyloo waaye en même temps yaa ngi koy signé sa diggante ak sa borom sunu borom subhanahu wa taala mu ne waa yaa ayuha alladina amanu awfu bil uqud la nga xamee ne da nga koo siñeente ak ka ngay liggéey ka lay liggéeyal na doon loo leeral ca heure bu lay liggéeyal nga yem ca loola amma yow mi nga xam ne da ngay liggéey it sàmmal lañ sant matal loolu ca bul jàpp ne ki ngay liggéeyal dong moo lay inspecté wala moo lay contrôlé kallaa sunu borom jàll wa ala ci la meññ yonente bi alayhi salaam nee kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati yéen ñëpp ay sàmm ngeen ay responsable ngeen yawmal qiyaama na la sa patron doon contrôler ak di la ko régler na noonu it xamal ne sa borom yàlla wallahi mi ngi lay régler loolu ca mbokk loolu rawatina sun jamonoy tey ji ak bari tey ay liggéeyukaay yoo xam ne am na ay lu ñu tudde caméra de surveillance léeg-léeg nga gis liggéey ba mujj directeur bi convoqué ko ko biroom ne ko yow day yaa ngi def nangam ak nangam ak nangam mën na am ma nga ca suuf directeur baa nga dixième étage waaye caméra yi léegi ci biroom lay nekk di contrôler yépp loolu mu lay won ne sunu borom jalla wa ala ci kawaara chamba amul kenn kuy liggéey ci kaw suuf baykat ba la maçon la médecin la commerçant bay pesele lu dul sunu borom yàlla mi ngi lay seetaan te yowmal qiyaama dana da nga ko rendre compte te loolu nga xam ne yaa ngi ko doon def loolee nga lawaay nañ ci ragal sunu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne awfu lkayla i kiltum wa zinu bilqisaas almustaqim zalika xayrun wa axsanu tawila ay waay na ngeen di matal peese yi na ngeen di matal balance yi loolu moo gën ca lam lay jural mujjug ëllëg yowm alqiyaama loolu mooy la nga xam ne mooy la gën a rafet yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon képp koo xam ne dañ koo santub liggéey nga la waay ne indi la ca néew ne indi la ca bari lépp loo xam ne jël na ko gannaaw loolu ak càcc la boo xam ne yowmal qiyaama dana ko indi ci kanamu borom bi te loolu muy musiba bu rëy bu ñu dal Sénégal da ngay dégg ñu ne ah place bi daa amul solo waaye nag am na maccaat am na maccaat mooy lan mooy bu bés bu nekk am nga loo mën a wàccaale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku ñuy liggéeyloo tëralal ko salaire gannaaw ba mu cay jël dara ci loo xam ne dañ ko koy jox loolee day doon musiba yowmal qiyaama looloo tax islaam rëbb la nga xamee ni ni moom mooy nger waa ji ñëw ci benn place fekk la nga daal di jël loo xamee ni nii moom du ak xam daal di ko koy jox wala loo xam ne du priorité daal di ko koy defal te fekk ne moom am na ñoo xam ne ñoo ñoo moom yem ci àq bi te ñoo ko fa loolee mbokk naka yàlla bañ a yonent yàlla bañ a ko noonu la bëree sunu société tey amul lenn looy toppatoo ci réew mi lu dul nga laaj ma ne place sangam xamuleen fa kenn il faut nga xam fa kenn ngiree say mbir mën a gaaw loolu nag yow jullit bi nga xam ne dangay liggéey ci yàlla tax yemeeleel ki nga bokkal ndeeg bàyyi ak ka nga xamee ne nii ab chinois la wala ab japonais la maadaama kay àq bi ak xam la jox ko ak xam sunu borom mu ne wala tabxasu loolee ñu góorgóorlu bàyyi ci xel bu baax sunu borom subhanahu wa taala mu ne yaa ayuha alladina amanu laa taxuunu allaha wa rasula wa taxuunu amanatikum wa antum taalamuun ngalla waay bu leen wor yàlla bu leen wor yonent yàlla bu leen wor li nga xam ne dañ leen caawóoloo waa ji jël na la ci magasin jël na la ci société état bi jël na la ci benn place ñi ngi lay jox salaire ba nga yeyoo ngal la waa yemal ci salaire boobu bu ci dem di lekk leneen loo xame ne nii amuloo ko rafetal ko sa kéemtalaal kattan sunu borom yàlla nee na dafa bëgg ñu rafetal inna allaha yuhibbul muhsinin lépp looy def nga rafetal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne yàlla daa bind rafetal ci lépp lu mën a doon xatta yow mi nga xam ne da ngay rendi mu ne ngalawaay rafetalal ni ngay rendee yow mi nga xam ne dangay rey na doon mbóot la wala janax la wala lu mën a doon rafetalal ni nga koy reyee loolu mu ñuy jàngal ne mbokk julit yi lépp dañ koo war a rafetal ca ca ca yàlla subhanahu wa taala tax ca rafetal ga mooy baaxal ko loolu muy responsabilité boo xam ne ku ne da cee war a bàyyi xel sunu borom subhanahu wa moom mooy ki santaani liggéey sunu borom subhanahu wa taala moo tasaare jaam yi am ñoo xam ne yëkkati na leen def leen ay patron am ñoo xam ne jël na leen def leen ay employé mën na am patron bee day kenn ci employé mi moo ko ëpp ay at moo ko ëpp ay diplôme moo ko ëpp xam-xam waaye nag lii la yàlla dogal lii la yàlla dogal mooy rafaa baadakum fawqa baadin darajat li yabluwakum ayukum ahsanu amala sunu euh, aw li yattaxida baadukum baadan suxriya sunu borom mu ne maa yëkkati lenn ci yéen ca kaw la ca des ngiree ñenn ñi de mën a liggéeyloo ña ca des bu ko defee da dangay war a sant yàlla yow patron mi nga xam ne yaay xëy ñaar fukki ponkal di li liggéeyal nga la waay loolu bu ko jàpp nguur bu ko jàpp di leen exploité la nga xam ne mooy seen àq doo ko matal kaay déglu lu yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax yonent bi nee na ñii yàlla teg seeni loxo day seeni yi ndey lañu képp koo xam ne doomu ndeyam nekk na suuf responsabilité bu mu ko teg mukk lu mu àttanul ca lu mu ko teg ne ko ca jàppale lii la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax mbokk mu bokk nekk loo xam ne musiba la boo xam ne dañ koy dégg bés bu nekk mooy ñoo xam ne dañuy génn ci euh, tali yi di dox naan fay ñu ñu juróom-ñaari weer wala ak nangam ak nangam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day nee na sunu borom nee na yaa ibaadi inni xaramtu zulma ala nafsi wa jaaltuhu baynakum muharraman fala tazaalamu sunu borom mu ne man yàlla dey araamal naa tooñ sama bopp donte ne ku ko neexoon tooñ ndax moo moom ñépp waaye mu ne araamal naa ko sama bopp du ma tooñ kenn araamal naa ko seen biir ngalawaay bu leen tooñante ci seen biir loolee xatta bàyyuma yàlla subhanahu wa taala bëggul ñu koy tooñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci loo xam ne Abu Dawud solo na ko xaakim wéral ko nee na dem na romb benn jardin waa ansaar benn gileem rëcc ca rek yuuxu ñëw ba ci kanamu yonent bi jooy jooy yonent bi alayhi salaam ne ana kan moom gileem bi ñu ne ko diw ko moom mu ne maa ngi leen di seedeel ndey daf may wax naa ko ñaanal mu yërëm ko lim koy teg ci liggéey metti na te du ko jox dund bu doy xoolal mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buy wax lii waa ji am gileemam rek ca du di ko teg liggéey bu metti ca du ko jox dund bu doy loolee yonent bi tere ko ana ki jël koo xam ne mbokku julitam la di ko liggéeyloo ay heure yu anormal ca bu fay jotee mu bañ koo fay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne sunu borom yàlla day nee na ñett ñii man maay nar a doon seen avocat yawm al qiyaama bokk na ci ñooñu waajoo xam ne dafa liggéeyloo nit mu defal ko lam ko liggéeyal ba pare mu bañ koo fay yowmal qiyaama maay nekk avocat waa jooju moo gaa yi ku dem ci procès boo xam ne ka ngay jàppanteel yàllay avocat am fan ngay muccee yonent bi alayhi salaam teg ci ba tey ne la nga xam ne mooy matalul xani i zulm képp koo xam ne da ngaa yoral nit ki àq nga am loo ko fayee nga toog benn waxtu fayoo ko xamal ne yaa ngi koy tooñ te wallahi ñu ngi tooñ yow yaa ngi nekk sa kër yaa ngi nekk sa oto yaa ngi nekk sa nekk emploi bi mën nam day fay luyaas ma nga am ay bor ca bitig ba yow ngay nekk di faj say soxla di ka lay guddi di ka lay bëccëg mbokk loolu safaanoona ak lislaam su dee ne yow kay danga bokk ci waa lislaam yonent bi alayhi salaam da wax ne ki a xam ne da leen liggéeyal na ngeen ko jox ak xam balaa la nga xamee ne aw ñaqam day fer gannaaw ba ay yow mbokk julit mi nga xam ne yaa ubbi sa tiroir di fay say employé wallahi loolu moo gën a màgg sarax ya ngay sarxe waa ji jëloon ab sarax tey di ko génne fayul ay employé jiital employeur loolu mooy la nga xamee ni nii moom mooy la gën a màgg ndax li àq la lii farata la te moom ak coobare la goo coobarewu donte ne bokk na lu ëpp ci loolu li tax bokk jullit muy am mooy alal yoo xam ne alal yu xaraam moo tax ay nit di dajale ay nit di leen liggéey la ba pare bañ leen a jox seen àq amaa buñ demee ca caaxaankat ya yëkkati ay million jox leen su ko defee nañu góorgóorluwaat mbokk jullit liggéey moo liggéey jaamu yàlla la taxawal di jël ay nit di leen liggéeyloo loolu jaamu yàlla la tuyaa ba ju rëy rëy la la ngeen leen cay fay loolee ay sarax la na ngeen góor góor góorgóorluwaat delluwaat ci liggéeyu lislaam ku nekk ci ñun di xool boppam mooy yow mi nga xam ne yaay liggéeykat bi bala ngaa tàllal sa loxo ji laaj benn àq tëjul sam ne xool ma ndax man li ma war lépp maa ngi koy def ndax man maa ngi ñëw heure ndax man maa ngi wàcc heure ndax man su ma ñëwee ci liggéeyukaay bi ndax maa ngi jox liggéey bi lam ak xam yëpp comme bu weer wi dee bu ñu ma teqoon tey dix mille francs danaa yéeg wàcc fu na ma jooy ko fa ndax man kon heure bi may joxe baa duma ci teq ay heure waaye yow mi nga xam na yaa am ay personnel booy liggéeyloo ngalawaay góorgóorlul ragalal sa boroom foo toll di leen xool di leen nemmeeku képp ku ci yor àq nga jox ko ko waaye it nga respecté ndax am na ci ñoo xam ne naam dañ la fay waaye nag yàgg golo geeg xar yi lañu yemale parce que dañ jàpp rek c'est des employés abadan mbokk say mbokk jurit lañu respecté leen bëgg leen jege leen loole da ngay gis ne day tax sax sa liggéey gën a dox nañu bàyyi xel ci ñetti mbir yu am solo yi ci kiy liggéey rawatina ki nga xam ne yaay liggéeyloo mbir ma ca ma ca jëkk mooy ak dëggu mboolem base contrat buy am ci kaw suuf la nga xam ne mooy fondement ba gën a màgg mooy la nga xam ne ne moom mooy dëggu sunu borom mu ne yaa ayuha alladina amanu taqullaha wa kunu maa sadiqin ay yéen jullit ñi ragal leen yàlla te ànd ak ñi nga xam ne dañoo dëggu na doon ñooñu c'est des patrons ou bien des employés waaye ñaareelu mbir bi mbokk jullit mooy la xam na mooy ak maandu ngal la waaye na ngeen doon ñu maandu yow liggéeykat bi maandul ci liggéey bi ñu la jox yow patron bi maandul ci sa personnel bul jël ñenn teg ci kaw ñenn lu dul ne daa am àq boo xam ne dañ ko yeyoo waaye ba ca ba ca mujj it mbokk julit mooy suufe ñépp xam ne lii natt la bu yàlla nattoo yow directeur bi yow inspecteur bi yow koo mën a doon yàlla la natt ci loolu waaye man employé bi lii yàlla ma ko nattoo su neexoon yàlla tey directeur laay doon wala ministre kon ku nekk na gërëm la yàlla nattu ci moom wallahi buñ ko defee yàlla féexal xol yi barkeel la nga xam ne mooy liggéey bi yàlla na yàlla barkeelal ñu suñuy liggéey yàlla yàlla dépp lu ñu lépp la ñu def ñu def ko ci yàlla tax yàlla nañu yàlla wërsëgal responsabilité yoo xam ne mën nañ ko ca heure bu ñu koy def yàlla wërsëgal ñu daal di koy rafetal yal na yàlla jéggal ñu jéggal mboolem ña nga xam ne jiitu nañu ci kaw suuf yal yàlla defal ñu mujj gu rafet yal na yàlla defal ñu àjjana mu nekk sunu wàccuwaay yal na yàlla wërsëgal sunu mboolemi ndaw place ñuy xëy dafa liggéey yal yàlla naatal sunu réew ba xale yi nga xam ne bëgguñu fee fanaan yàlla naatal ko ba ñu nibbi woon sax da ba ñu tukki woon dellu si war ngir liggéey fi mbokk yàlla am na kattan ci loolu Arabie Saoudite ma nga ne la ay at yu néew nekkoon nañ ñu yàlla balal fa pétrole equatorial yàlla balal fa loolu te lan moo koy waral lu ci bari moo di ne waa réew ma ragal yàlla gëm yàlla suñ ko defee day yàlla am na kattan ci loolu yal na yàlla naatal suñu réew naatal suñu liggéey may ñu lu alal lu doy ca dagan may ñu loo xam ne nii danañu mën a suturaal yal na yàlla musal ñu ci lépp loo xam ne lu xaraam la yal na yàlla subhanahu wa taala rafetal lépp loo xam ne ni suñuy jaamu yàlla la waaye rafetal lépp loo xam ne suñuy liggéey la allahuma rabbana atina fi dunia xasana wa fi l axirati xasana wa qina azab annar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun ala المرسلين والحمد لله رب العالمين